ziar nañ la ñu ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci sitaan bi nga ñuy sitaan partout dans le monde fépp rek fu Sénégal nekk di suivre 4appuis ñu leen nuyu bu baax di la ziar moo xam France États-Unis Espagne Maroc fépp rek fu Sénégal nekk di suivre 4appuis nuyu leen bu baax ziar la tey nag ñu ngi cité Keur Gorgui ci rajo Père Bécaye Mbaye seet si fi Modou Mbaye fas yéene waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom aussi tamit ci làmb toll nii ak làmb nu muy doxee parce que instant yi gis nañ gis nañ actualité yu bari yu jot a jàll mbëri génn nañ def ay point de presse ñu wax ci huis clos bi loolu yëpp tey ñu fas yéene waxtaan ak moom am na tamit combat yi jot a taxaw malgré ko coronavirus mu ngi fi bëgg nañ tamit combat yooyu mu joxe ci xalaatam su ma toogee Modou Mbaye nag sama xel day dem ci benn sama benn waay bu nekk Touba bu nekk Touba ñu koy wax Saliou di ko nuyu bu baax di ko ziar di nuyu tamit sama xarit borom Dakar Actu dañu muy nuyu Modou bàyyi ko mu nuyoo ñu si taan ñu dugg ci waxtaan la. Saliou Dieng laay njëkk a nuyu sama xarit boobu ci Touba maa ngi koy ziare di la bëggee bu baax a baax Serigne Saliou léegi rajo bi am na doom mu doon télévision ci télévision bi nga nekk nii. rajo bi rajo mi ngi ci kaw télévision bi mi ngi ci suuf Bantamba TV moo nekk nii waaw Bantamba TV moo nekk nii dëkk ci kaw luyoo ci suuf loolu lañu def ni <laughs> maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax di la kontaane di nuyu chers internautes yu app appuis TV maa ngi leen di béggee tey nag waa 4appuis dañoo ñëw ngir def ma 4appuis non non maa leen di dóor 4appuis tey kay du yomb ci ñoom waaw waaw du yomb ci ñoom maa ngi leen di béggee bu baax a baax di nuyu senegal yépp waaw di nuyu kilifa diine kilifa aada yi njiitu réew mi ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mais njiitu réew mi nuyu nañ la mais njiitu réew mi couvre-feu bi metti na waaw metti na kay. léegi Modou instant bi ñu gis affiche mag taxaw na même si bu fekkee corona bi mu fi ay Modou Ama Tapha Tine boo Niang Balla Giri bëri na rëg-rëg guy gi. Balla Bombardier Balla Bombardier rëg-rëg guy gi ba ci Siteu Papa ba dañ ciy bii pare dañ ciy jël ñaari combat comme temps sa temps bi mooy loolu aussi a dem def ñu commencé ko par Modou Ama nga ci sa analyse. wala tey bala wala avant analyse bi tey boo mën a résumer carrière Modou Lo nga lan ngay wax ci carrière lan nga may wax. il fait des meilleurs de sa génération si n'est pas le meilleur il fait partie des meilleurs muy ndaanaan. Hmm. koo xamante ne bi muy dugg ci làmb yaakaaruñu woon ne dina yegg si ci niveau bi mu yegg si. Hmm. mais jomam fulaam faydaam ak abnégation bi nga xam mi ngi ci moom tax na mu daan ay moroomam ba jeexal leen dugg ci kalaaf jël ko fekk fa ay ndaanaan yoo xamante ne foogu ñu ne woon ne mën na leen a daan Paul Maurice al exemple Papa Sow dafa booy bambara ñoo ñoo ko jiitu woon ci làmb daanaka mu génn ci confirmé ci Boy Kayré jóge fa wane boppam nag ci combat yi nga xamante ne mooy combat yu mag yi ko doon xaaree mu daanu ci digganteem ak Balla Gaye 2 rattrapé wu rata wala euh, wu ci digganteem ak ma Mandione bi mu ci jógee bëreeg la dageer machine ak moom jóge fa jëli Eumeu Sène bëreeg moom daan non bëreeg Gris jóge ci Gris Bordeaux jë bëreeg Eumeu Sène daan ko jóge ci Eumeu jëlaat Gris Bordeaux wala jóge ci Eumeu jël Bombardier Bombardier daan ko mu ñëwaat jël Gris Bordeaux jëlaat la dëggeer jëlaat Eumeu Sène te ñooñu ñëpp mu bëreel ñoo ko sut ñoo ko fuuf jiitu ko ci làmb waaye fullaam ak faydaam moo tax suñ soo ko bu soxor rek amul di nga ni boobu bu dul le meilleur di nga ni il fait partie des de sa génération kookoy moot loolu loolu laa la ko présenté parce que il est parti de rien pour devenir aujourd'hui le roi des arènes ndaanaan la jàmbaara ngoo ñu ñëpp ne du du du egg non mënul woon yegg si mënul nekk waaw ah, ba reporter yi sax dañ ko doon wax du yegg si mënu ko mais Demba Dia avait juste vu le yal na ko yàlla xare aljana keroog waxoon na ko ci bantambaa bi mu ne woon gëm na ni mën na nekk roi des arènes gis nañ ko macha allah. macha allah Ama doonu mbër gi ay baayam Jules Baldé magam mm. Papa Baldé magam Pathé day magam. seen kër jigéen ñi sax dañuy bëre mu doon xale dugg ci làmb ñaari yoon la bëre Iba Mar Diop ñu tëj ko Usu Njaay la fa bëree la kat kateeg baay pël ñu toj arène ba ñu toj estade ba ne ko mënatoo fi bëree mu ñëw Demba Diop bëre fa ak Bébé Saloum jóge fa nees daan ko mu ñëw rattrapé wu ci ay moroomam moom it dugg ci tournoi TNT la guy gi moo ko fa daanoon fa la ko fekk Zos këram la jànge bëre fa la ko fekk ci biir pul ba Tapha Tine magam la moo ko jiitu ci làmb ci biir pul ba la ko fekk mu boole leen ñoom ñëpp daan wane ni nag dafa am cër ci làmb mhm. yàgg dëkk Modou nag mhm. yàgg na ko dëkk lool du tey mhm. dëkk na ko ci làmb joo xamante ne nii bu yàggul Pape Modou génnewaatoon na image yi moo amoon ca Mbuur wala waa je sais mbuur la woon. waaw mbuur la woon. ci Bazoka ba ci ci Bazoka. ak ci Pakala. Pakala Boy Naar ci Pakala Boy Naar. ama ah, dëkk ko. fu ne. ama ah, dëkk fa Moodu. waaye li ma lay wax ci ama rek. moo la mën ak mënu la. baal ba at bi sifle. ndaanaan la doon na mbër gi. am na fulla am na fayda bëgg na entraînement li ma gën a neex ci Ama Baldé dafa bëgg entraînement Ama dama ko Ama day dëkk fi muy entraîné moom fi muy entraîné dafay dëkk Ama moom dofu entraînement la loolu rek ma neex ci moom waaye nag ki muy bëree li dofu entraînement la waaw ndax entraînement moo tax mu yegg si fii mu yegg si ñaari naa ay bëri li ma lay wax ci ñoom bu ñu ñëwee ci côté technique ah Modou xarañ loo. mais Modou balay technique bi mu mel ne mu mel ne Ama dafa topp si ay tànk Modou. parce que ku Modou bëreel Ama jël ko bëree moom Modou jël ko tournoi Ama dugg si tournoi jël tournoi bi mu mel ne day dafa topp si ay tànkam. waaw làmba mel noonu. Balla Gaye daa toppoon tànk Yékini ñi fi Yékini daan ñëpp daan na leen balaa moo bëreeg Yékini làmba mel noonu. làmba mel noonu ku la jiitu ci làmb boo ñëwee ci ginnaawam rek ngay mën a topp. mënoo fee def lu raw li mu fi deful. mais mën nga fi sax def lu raw li mu fi deful mais mënoo def lu dul topp ci tànkam ba yegg si ci moom. te ama loolu la def topp ci ay tànk moodu nànk ba yegsi ci moom te yegsi na ci moom te ñor na ku bëgg a dégg dëgg dinga nga nangu ni nag ama Modou Lo ñor na ñor na de wax dëgg yàlla ñor na daan na ay moroomam Modou daan na ñi fi mën tey jii ba nekk au dafa ñor li tax mu ñor mooy moodu moo nekk fi tax am combat bi ñor mm-hmm. tey jii Modou bu daanul woon Eumeu Sène moo Ama mën nañ bañ a bëree mais moo daan Eumeu Sène mhm. par force day bëreek Ama mhm. ndax moo daan magu Ama ñaari yoon mhm. ba pare nangu ci moom couronne bi waaye ma wax la benn affaire waa Pikine ci ñoom la Tyson nangoo woon couronne bi de waaye ñoo ko jalaat ci ñoom la Bombardier nangoo woon couronne bi waaye ñoo ko jëlaat ci Bombardier jëlaat ko ci ñoom ñoo ko jalaat ci Bombardier ndax Tyson la Bombardier daanoon Eumeu Sène jël ko ci Bombardier mm-hmm. moo doon nag moo daan Eumeu seen mm-hmm. moo ko am amaay bëree mm-hmm. xamaguñ koy daan <laughs> mais daal loo ci mën a xam ah. ñaar ñu am yoonu làmb ñooy bëree ñaar ñu mën a bëree ñaar ñu am fit ñaar ñu am doole ñaar ñu am ginnaaw ñaar ñu am mystique ñooy bëree te ñaar ñu làmb bëgg ay bëree làmb ju rëy ngay gis ju ki ko tëgg c'est ah, lu ne def na ko ci làmb ba pare ànd ak télé bu mag bi Bantamba TV. Mm-hmm. du yomb ah, de non ñoo ko moom. Mm-hmm. ñoo ko moom. Mm-hmm. Bantamba damay bañ a waxaat sax sa papa dama woowaat dama artu xaama noppi rek man su ma kontaanee damay expliquer rek. <laughs> léegi Modou Ama man confiance bi mu am nii jaaxalu la. déedéet jaaxalu ma de jaaxalu ma confiance bi laa mës a gis ci moom. lii laa musa xam ci Ama dara changé wul ci Ama lenn rek a changé ci moom mooy mi ngi yokk <laughs> mi ngi am doole de mi ngi gën a am doole sax mi ngi màgg nañ bàyyi loolu xel. parce man kuy bëreeg Modou Lo ak exploit yi mu fi def yëpp macha allah nga dem ba egg ci naan sama dugg àjjana ni ma leeree sama roi sama roi des arènes ni ma leeree sama sama àjjana leeree woon noonu ma dee tey ni egg ci niveau de confiance boobu. men sama gis-gis dafa mel ku daan Modou Lô dem guñ si làmb ji. Balla Gaye ni maa la mën te bëree guñ mais làmb la tu man su ma doon mbër. barki yonent bi moyen bu ma mën a def pour déstabiliser sama adversaire dinaa ko def parce que je veux la victoire te victoire dafa dafa dafa neex rawatina rek victoire roi des arènes tey jii bu Modou daanee Ama bale pour confirmer sa si ah loolu leneen la. mais bu ko Ama daanee aussi dafa am fu mu dafa am lu mu fu mu yóbbu Ama dafa am lu Ama bëgg mais làmb ju yi ngay gis. ba ñu bi techniquement combat bi enjeu ci Ama Baldé wala relevé bari na waaw. Mhm. défi yi. défi yi défi yi mu ci war a relevé bari na moo doo daa moo doo jëlee couronne bi pikin mhm. na ko dugalaat Pikine. Mhm. benn defee ngook moo doo daan ëmma ñaar yoon na ko fayul. beneen defee ngoog moo du seen kër la jàngee bari teg ci. seen kër la jàngee bare te man mosumaa gis mbëru Pikine bu daan Modou gisaguma ko déedéet gisaguma ko Bombardier fi daan Modou Lo ak Balla ci mbapat sax déggaguma mbëru pikin bu daan Modou waa Pikine war nañ jéngu ci côté boobu nag xam naa ne bu ma ko waxee dinañ ni kii moom xanaa dëkkul Pikine Pikine laa dëkk sax mais je suis neutre quoi waa Pikine nañ jéngu ci côté boobu nañu jéem a jéem a fayu ndax Modou sonal na leen Modou moom saison bi bundu Pikine la ko teg ah waa Pikine bi yeboo ngeen jéegi sama mboq yi yeboo ngeen dool booloo de <laughs> doon benn te xam ne xareñ sees bu buntu Pikine la ko teg waaye mi ngi bëri xale yu ragalul loolu wax jooju ngay dégg ñu naan ragaluma loolu xale yi ragaluñu loolu déedéet xam naa leen ragaluñu. dëgg na paase def la doy waar. daan fa moo fa daan Baye Pël daan fa Zos daan fa Papa Sow déet Balla Diouf a ngi faas bi mu koy daan. waaw mu woon daan na fa Baye Pël. Hmm. daan fa Papa Sow. Hmm. daan fa Zos. Hmm. waaw ak Zos. Modou moom it war na fayul frère yooyu. ndax bi muy daan Baye Pël. Modou ko muy daan Baye Pël ko indi. waaw bi muy daan Papa Sow nañ cummikaayu Modou Lo wa ñëw. yooyu yëpp ngi ci. bàyyiwaat xel làmb ju la. ama xëy na. moo dëkk Moodu. Mhm. mais tamit Moodu bañul bëreeg Ama de. waaw bañul bëreeg moom bañul bëreeg moom. Mhm. parce que am na lu mu bëgg wane. Mhm. ndax nee na moom. liñ naan moom ak Ama ak moom ak booy yi. dafa bëgga wane ni ñoom ñoo maase. même génération lañ. da koy wax toujours de loolu lay wax. ñëw ci combat nag léegi ñu bëri dañ ne combat bi bu buy duré lu yàgg Modou la fa Modou la arranger bu gaawee Ama la arrangé dèjà waaw loolu d'accord nga ci loolu dèjà. man xaw boobu loolu moom xaw ma si dara. làmb ji daal li ma la mën a wax mooy ba bi siflee Ama day songu moom loolu ma leer na ma piir ne su ma sama dugg àjjana leere woon noonu ma dee tey Ama kan lay dox ci ka ci kan la kanamu ci kanamu kan la Ama de arrière koo mos a gis arbitre siflee te songu Ama songu la day songu non da ngay songu Malick Niang rek la arbitre siflee mu daw dox ci kaw Ama te bi mu dawee dox ci kaw Ama gis na li ko ci fekk ama dafa riposte bëreeg moom Modou Lo ama day dox sa kaw ma wax la ko ma sàcce wax la loolu ama day dox sa kaw day dox sa kaw lu leer parce que ama lool la xam xamul leneen loolu lay def ama day gis le contraire arbitre sifflé Modou Modou njëkk ko ci loolu Modou xamuñu loolu ci moom Modou gisuñ kuñ ko mu songu mbër waaw da koo gis day taxaw xaar la mm. nga def action mu exploité action bi wala ngay ñëw di ko song songu ba mu xool nu mu la naxee ndax ndaanaan la mm. ak a mën a bëree mm. ak a mën a bëree maa gis ay image am équipe nationale ñii foog nit nii sax Modou Lo kenn dàq koo bëree ci làmb ji ak mën a bëree làmb la joo xamante ne nii daal ku yéex doo te du du pay per bi ne jeex <laughs> bu dee huis clos la ku yéex pay-per-view bi doo am code. ndax combat bu rëy la. Bantamba TV koy def. mu war a leer mais xeex bi nag. ah xeex bi xeex bi moo doog moo ëpp mooy favori ci xeex. mooy favori ci xeex bi hmm. mooy favori ci xeex. Hmm. bëri bi nag ku ciy favori. bëri bi Modou moo moo moo léger favori. ci bëri bi waaw parce que Ama bu ñu seetloo combat ñi mu daan ñëpp. xam nga bëri gars yi dañuy wax naan technique kii lim déedéet. Hmm. nañu bàyyi xel. kii ñi mu daan ci xeex ak ci bëre man foofu laay analyser su may analyser bu ñu nee ci bëre damay xool ñoom ñaar ku ci nekk say combat nan nga daanee ci ci nan nga daanee ama combat am yëpp ci bëre la daanee Malick Niang rek la ci dóor mu kaawoo moo bëre te ci bëre la jeexee Modou Lo am na ñu mu dóor ñu daanu kon ci xeex moom mooy favori mais ci bëre moodu mooy léger favori mais ama am na xam-xam bu daan Modou ci 30 secondes ci laam waaw mbër mbër la doomi maa la wax lii. doole nag. ñoo ko tolloole cinquante cinquante la. ñoo ko waaw. Mhm. waaw doole ñoo ko tolloole bu dee dina am kuy ëpp doole Ama lay doon ndax moo gën a doon xale. Mhm. pense loolu leer na de. <laughs> macha allah maa ngi jégalu nag bu dee damaa wax lu ma warul wax waa ah, supporters yi damay bañ ñu mere ma rek. Mhm. mais li nga wax tamit jaadu na. ok ñëwal ak kan. macha allah mu la. sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant suñuy wéyjur di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci réew mi di rappeler encore une fois l'état du Sénégal nañ bàyyi xel la jeunesse sénégalaise ñoom bi ñuy nekk xale ñoom da ñi fi nekkoon dañ leen bàyyi woon xel ba tey ji ñoom ñu mën a ñëw yor réew mi kon ñoom nañ bàyyi xel xale yi fi nekk ndax ëllëg ñoo war a yor réew mi nañ waat xel jeunesse sénégalaise am na solo bu baax a baax di leen ñaanal nag ñoom ndaw Sénégal yëpp yal na yàlla kàttanal leen yal na yàlla dooleel leen fépp fu ndaw Sénégal nekk foo mën ne yal na yàlla kàttanal la dooleel la ba li nga bëgg nga am ko wallahi azim damaa yéene ndawu Sénégal ñu réussir ndax dañoo am jom dañoo am jom doon ñu ngi fépp ci àdduna biir Sénégal fii ci biir Sénégal foo dem fu njaay am foo dem fu liggéey am ndaw ndawam ndawa nga fa di fa góorgóorlu yal na yàlla sàmm leen yal yàlla sàmm leen yal yàlla def jàmm ci réew mi. waaw fans fans Bantamba yi yéen ñi nga xam yéen a bëgg Bantamba bëgg Modou mbay maa ngi leen di ñaan ngeen abonné wu ci sunu chaîne YouTube bi 4appuis TV ngeen jàpp ci bu baax a baax ndax information làmb moom yaakaar naa ni fii dina ci am solo bu baax di leen jaajëfal merci. macha allah Modou kontaan nañu baax di la remercier ci émission bi vraiment waxtaan bi am na solo trop te ku la dégg nga wax aussi. moo su déggee ku la dégg nga wax dina xam ne xam nga am nga connaissance bu baax si làmb non am nga connaissance bu baax si làmb vraiment ku la dégg nu nga waxee di la remercier bu baax vraiment gars yi dinañ jox rendez-vous kon benn ñoon incha allah ak benn invité toujours rek ci waxtaanu làmb c'est le 4 appui c'est le 4 appui c'est le